Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. kii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku diaspora euh, Touba ca kanam. comme ni ngeen ko xamee rek ñu ngi fii ba léegi ci exposition bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci dëkk bu sell bi ci pencu Serigne Touba mi nga xam ne mooy euh, Touba euh, ci exposition bi rek ñu am suñu jëwriñ sëñ Modou Seck mi nga xam ne mooy vice président wu bi nga xam ne euh, commission bi nga xam ne mooy communique mooy commission de la jaspora muy vice président bi di ci def liggéey bu am solo mu ànd kook sëñ Euh, Abo Bousso ak sëñ Modou sëñ euh, Moustapha ginnaaw bu ñu leen ndokkalee di leen ziyaare ñu am ko fii rek doon ko laaj euh, ay kàddu yu am solo yu néew rek ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu diaspora bi ci li nga xam ne waa diaspora bi war nañ koo taxawee te itam ak nu mu gisee liggéeyu tubaa ca kanam bi jamono yi ñu toll surtout ci màggal gi nga xam ne fi lañu nekk te Touba ca kanam di ci def liggéey bu am solo te diaspora bi ñu bari ci ñoom xañ ne ñëwuñu waaye bëgg nañoo xam lu xew exact li ñu gis ci réseaux sociaux yi ak liggéey bi ak cordination bi nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne moo nekk suñu kanam ak soññee yi nga xam ne war na koo def ci lu jëm ci diaspora bi pour liggéey bi ñu gën cee mën a jàpp ngir jëmi Serigne Touba ji sëñ Modou Seck bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax sëñ Modou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm di la mas coona ndax uh, yëg nañ ne dangay ngay doog agsi tamit nga agsee wenn xel rek nga ko def ñëw fii kon loolu ay coona la yoo xam ne toggoo nga ko ñu ngi lay dalal bu baax a baax te di la masawu coona di nuyu nag waa diaspora bi yëpp di nuyu waa di nuyu tamit bokk yi nga xamante ñoom laa ñoom ñoonu dalal tey euh, ñu bu baax a baax te leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla def ci barke ci liggéey bi ak xéewal ci barke bi Serigne Touba mhm. bu loolu jàllee nag euh, ci li nga laaj muy wàllu muy wàllu liggéey bi liggéey bi ni mu demee moom mu yow yaakaar naa ne kenn du la ko wax ndax fa nga ca féete réy na raay goo xam ne ak màgg ak euh, jàmbaar goo xam ne ah ok mm-hmm. sa taxawaay màgg na rëy rëyaay boo xam ne kon yow kenn du la wax euh, doo laaj kenn liggéey bi lu ñuy def daal mooy sant la te gërëm la ah, di jéem nag euh, jéem tuuti ci li nga nu laaj muy wàllu diaspora bi diaspora bi de moom daanaka ay bokki taalibe lañ yoo xam ne sëñ sëñ Touba moo leen yabal ñu dem war faa liggéeyal sëriñ Touba ndax euh, bari na fii ci dëkk bi loo xamante ne nii lu ñuy xoolaat la te ñoom ñoo ko fi def muy wàllu ndax sëriñ Touba Touba ci kanam dafa demee noo xamante ne nii du du du ab dëkk Touba Touba am ab kër la. kër nag ku fa defar néeg bu rafetee borom kër nga ko defal ku fa joxe dépense borom kër nga ko defal gis nga Touba képp koo xam ne ñëw nga fi yor fi sa kër na la wóor ne yaa ngi lëggeel sëñ Touba ndax ku dajale mbooloo ci sa kër yaa leen war a yor yaa leen war a jox dépense te kon Sëriñ Touba ñuy jox dépense nag moo nu war a jox dépense waaye mi ngi ñu koy jox waaye nag. bam ñu ko joxee tamit mënoon nañ koo def ci beneen dëkk wala ñu def ko ci geneen kër waaye ci këram gii lañ ko def muy bu ñu amee néeg bu rafet ci kër gi lañ koy def suñu amee kër gu rafet fii lañ koy defee bu ñu amee lekk gu neex njaboot gi lañ koy jox loolu lépp nag di liggéeyal Serigne Touba kon nun li ñu war a def ca la ca ëpp nag waa diaspora bi bari na ci lool loo xamante ni ñoo ko def ndax milliards yu baree baree bari yi nga xam ne adduna bépp ñoo koy soow muy dugg Touba milliards yooyu ci diaspora bi lay jóge ñëw fii waaye nag nange ngeen nañ boole bokk sant yàlla te gën a góor góorgóorlu ndax liggéeyal sëriñ Touba nit du ko def ba say moroom raw la képp kenn du liggéeyal Serigne Touba ba say moroom raw la kon su fekkee da ngeen ne dañoo nekk ci diaspora bi di liggéeyal Serigne Touba waruñu caa def dara du dul sant ndax day Serigne Touba am na benn bis boo xam ne dafa nekk uh, ci Touba uh, ci Diourbel ba boori deux ci guddi. mu jekki-jekki rek ne bëreet jóg daa di daa di këf satalaam waaxu waaxu mu tàng ubbi benn bunt ndax Jurbel côté bu nekk bunt dafaa nekkoon waaye bunt bu nekk dañ fay taaj benn taalibe ndax duñ xam sëñ Tuubaa fan lay génne te ko ci yàlla xee day jékki-jékki rek génn léegi nag taalibe bu nekk ñu teg ko ci bunt bés ba nga xamee ne sëñ bi nee na pël yam ci benn bunt ne kuréel daal di ubbi bunt ba fekk fa kilifa gu taxaw fekk fa taalibe bu taxaw mu jox ko satala gi kooka daal daw topp ci moom muy waaxu waaxu mu tàng bàgg ca armeel ya daal ne ko gees ne ko kokkan la mu ne ko mën a Omar jëm mu ne ko waaw Omar mu ne ko mbakki mu ne ko xanaa fii ku masa a liggéeyal ku ma mas ku ma mas a liggéeyal wala ku liggéeyal ku ma liggéeyal wala ku liggéeyal ku liggéeyal ku ma liggéeyal tëddu fi mu ne ko ah Mbacke man nag de loolu wóoru mu ne ko amu fi moos ndax sama kër ga mënu faa def dara ndax ndax ndax yuuxu yuuxu yi ñuy yuuxu moo ma jàpp mënu ma fa woon a def dara waaye bi ma ñëwee de ñoom ñëpp noppi nañ sawee nañ leen ñoom ñëpp ña te dégg naa foofa benn benn benn koo xam ne nii ab taalibe la woon wala ab ab jullit sax ay du du woon sëgi jullit ndekete sëgi ñeneen ñi la woon waa léegi nag ka nga xamante ne nii mën naa jéggal ña nga xamante ne nii maanaam du ñuy du ñuy du ñuy waxumay murit waaye sax du ñuy jullit kon nun jullit nun taalibe yi alhamdulilahi rabbil alamin rek lañu war a wax te yàlla dogal na ñuy liggéey kon liggéey bi ñuy liggéey kon nañ gën a góor góor ndax nun suñuy jëm waxatuñ waaye nun ci suñ bopp ku liggéeyal ku nu liggéeyal rek yaa ngi ci biir loolu kon Serigne Touba li mu ñuy defal yaakaar naa ne nun li ñu war a def lam daan wax ne sol dàllu weñ di daw di daw ba dàll weñ wa daggatoo ngir gis ku gis ku ma gis jar na ko te bu da ngeen dem ba jamono dana jafe loolu danga ko mën a def te du tax nga gis ku gis ku ma gis kon nun yàlla dogal na gis nañ ku gis ku ko gis wala gis nañ sax waa kër sëñ Tuubaa liggéeyal leen donte bari na donte néew na kon nun alhamdulilahi rabbil alamin rek moon war jërëjëf jërëjëf jërëjëf jëwriñ soññee bi am na solo ñu lay sant bu baax Euh, di la gërëm ci kàddu yam solo yi comme noonu mu ko waxee rek kon mbokk diaspora bi euh, yéen a ko gis euh, liggéey baa ngi noonu xam naa ñu gën a ànd rek ak mbokk yi nga xam ne teew nañ fi ci liggéey bi nga xam ne exposition bi mi ngi door a commencé di leen ñaax bu baax kenn ku nekk rek foo nekkoon rek jàppal ne boo ñëwee ci dëkk bu tedd bi ba gis Touba ca kanam li mu fi def